tekkiwul dara mi mais il faut loolu am léegi nag acharnement bii yëpp yaay ji di def di wër ak yooyu du dara koppar rek xaalis la ci bëgg puisque nit ñi ne woon nañ ko nañ dem ba cappaandaw ba waa ji buñ koy condamné dinañ la fi ci fay xaalis bu bëri te gis nga cinquante millions lañ laa joon mais koo xam ne deful benn faute il a été acquitté amul dara luñ ko mën a reprocher mais doo doo doo ko acquitté ba pare accordé que victime ay dommages et intérêts alors cinquante millions par rapport ak xale bi xëy na préjudice bi jafe-jafe yi parce que fi mu nii maire bi ñëpp xam nañ ko nga xamante ne moom mooy euh, Adama aussi seen école et, et et et tout et puis et les jeunes comme vous dites elle a elle a ans ban message nga leen di lancer très rapidement sa kàddu gu mujj euh, à Adama et à sa maman. amuma benn message bu ma leen di lancer gis nga ñooñu ñooñu ak ñi ànd ak ñoom ñëpp def kabal bi ba dugal ma kaso ba pare continuer ci kabal bi ak association organisation yu ñu mën di bokk ak sénégalais lambda bi nga xam ne bi ko déggee dafa ne Sitor Ndour viole na ñoom ñëpp dañ ma gàddul àq amul kenn ku ma ci baal te maa ngi ñaan yàlla mu àtte ñu te gis nga nag ma terminer ci point boobu gis nga bés penc dinañ ma fay ci nii wala ci yàlla dina ko àtte